Euh, merci beaucoup tey dañoo ñëwoon conseil constitutionnel euh, parce que démb la woo ñun ñëpp euh, ñu convoqué ñu fi li ñu fi ñëwee nag aussi les vingt et un yëpp ñëw bu nekk ñu notifié la jox la notification bu nga xam ne ça lui concerne directement et concernant le candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar à l'occurrence Amadou Ba notification bu ñu jox mooy recours bi nga xam ne moom la Thierno Alassane Sall déposé Euh, contre euh, la double nationalité de Karim Meïssa Wade donc ci biir loolu nag euh, liñ ci jàngat mooy moom ci boppam ci biir recours am da cee basé wu ci ay faits ay faits yu leer yoo xam ne moom la contenté wu ba ba def recours bi et ñun ñëpp mën nañoo juger ne lu mu def wala lu mu def lu mu bind c'est scientifique et c'est c'est vérifiable parce que jusque ba le 14 fukki fan ak ñeent ci mois bii ñu nekk nii Karim Wade mu ngi ci fichier électoralu France bu ñu xëyee tey nag gis nañ benn décision boo xam ne le première ministre bu France moo ko def ci euh, déclaration de renoncement boo xam ne Karim def na ko ci ci nationalité française bi mais loolu yëpp dafa am luy jiitu parce que dañoo ne balaa ngay nekk candidat à l' présidentielle dafa am ay pièces yoo war a fournir ci pièces yooyu nag dafa am lu ñuy wax déclaration d' honneur et ci biir déclaration d' honneur bi aussi da war a wone ne man sama bopp sénégalais kese la amuma beneen nationalité mais moment bi mu koy def ba koy déposé ba ñuy contrôler ses parrainages euh, Karim ñaari nationalité la am muy sénégalais la d'abord nekk aussi euh, français yaakaar naa ne nag sénégalais yi tollu wuñ foo xam ne dañuy fal koo xam ne euh, dafa am double nationalité mun naa à tout moment dugal ci réew mi ci loo xam ne du yoon donc ku ñuy fal na nekk koo xam ne sénégalais kese nga dara lalwu ci leneen nekku ci donc loolu nag euh, c'est le processus électoral noonu lay demee chacun am na droit déposer recours mais keneen ko aussi am na droit aussi apporter les éléments de réponse d'ici au plus tard le vendredi c'est ça que le conseil constitutionnel a dit maintenant Euh, d'ici le 20 la décision de justice nañ ko xam parce que le 20 la ñu war a euh, publier la liste ci ñi nga xam ne ñoo war a jongante ci élection présidentielle yi yi ñu jëm. ndax mun ci ñaari recours yi nga xam ne tam Benno Bokk Yaakaar jox na ko dugal concernant Bassirou xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Guèye. waaw loolu laa la doon wax léegi ci ci ci ci ci ci nasaraan. Mhm. may la duma ci mën a dugg. Mhm. parce que ki ko déposé woon. Euh, ki amoon prérogative bi déposé ko. Mhm. ñëw na fi démb. ci seen kanam posé ngeen ko ay question tontu na leen wala tontuwu leen euh, dara wóoruma ci mais li ma leen mën a wax mooy ku nekk da nga am sa mission ku nekk da nga sa mission nga am euh, ci mission boobu nag man ci loolu laa mun a yem euh, parce que tey man fi ma taxaw nii je ne suis pas le mandataire de Benno nekkuma mandataire u Benno représentant candidat bi la muy Amadou Ba le mandataire c'est Benoît Sambou dans les normes moo waroon a ñëw taxaw fii mais dafa nekk en voyage euh, ci recours bi nag su ngeen posé question bi ki nga xam ne moo ko déposé woon maître yaakaar naa dina leen ci wax ay détails ah waaw moo moo mooy li ma la wax parce que dossier yi ma yor lii ma mooy li nga xam ne mooy recours bi nga xam ne moo lalu ci Karim may Wade lii mën naa la cee wax parce que yor naa document bi am naa les détails mais ci li nga xam ne aw ma ci détail nag mënu ma cee développé loolu aussi da ngeen ma koy nangul waaw ok merci beaucoup